de mai 2024 door ko ak euh, le journal bi di Sud Quotidien euh, bi nga xam ni dafa ñëw ci baisse du coût de la vie ak respect aussi euh, des accords signés amélioration des conditions de vie et et revalorisation des salaires muy li nga xam ne ni ay points la yoo xam ni kii di son excellence daal dina koy fësal depuis mi nga xamante nii ñëw na ci bopp réew mi wàññi dund gi waaye tam respecter li nga xam ne moom mooy accords yi ñu signé améliorer maanaam maanaam gën a ñoŋalaat euh, nekkinu euh, doomu aadama yi fii ci biir réew mi waaye tam gën a daal di euh, yokkaat ak saytuwaat li nga xam ni moom mooy salaire yi le cri aussi de cœur des travailleurs bokk na ci revendication yi nga xam ne ñoom travailleurs yi teg nañ ko ci loxo le président de la république Bassirou Diomaye Faye moom le président exactement ci biir journal bi ñu ngi xamle ni Euh, daal di euh, joxe ay gage maanaam euh, def na daal ay diggé les centrale aussi syndicales en grande mobilisation en ce premier mai takku taxawaay ak takku gi nga xam ni takku nañ ko ñoom centrale syndicales yi ci premier mais ni ki démb yamook fête bi nga xam ne dañ ko jagleel liggéeykat yi ak médias yi nga xamante ne aussi daal di nañ bu baax a baax le plaidoyer ak le plaidoyer exclusivement wala particulièrement de Bamba Kassé mi nga xam ni moom moom moo invité euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, tënku ci way euh, ci tasum xabaar Sud Quotidien desani na ci aw tiis génn ko àdduna ki di promoteur bi di Gaston mbeng mu ni nag Gaston Mbengue per son dernier combat moom nag combat bu mujj moom Gaston Mbengue daf ko daal di ñàkk moom journal bi lee moom la daal di xëyee tey ci xëtam mu njëkk moom Sud Quotidien Le Soleil yéenekaay yi mel ni da koy feelu moom it mu ñëw ci Bassirou Diomaye Faye ma nga xam ni dem na ca Mbour 4 mu ay anomalie yoo xam ni desale nañ ko dans le euh, lotissement ci lotissement yi nga xamante ni nag am na ci suuf soosee ñu euh, wala partie de terre boobu ñu duppee euh, Mbour 4 am na fa daal loo xam ni dese na leer moom la président de la république nag tax na mu daal di fay wàcc wàccuk bette ni ki démb mu nekk nag une visite inopinée ci ni ko le soleil daal di gën a titré sur le site dont l'attribution des parcelles et des terres fait l'objet de polémiques donc mu ñëw nag ci ay mesures conservatoires yi nga xamante ni la koy liggéey mu ne nag le temps de tout euh, auditer nee euh, euh, le temps que nag ñu daal di saytuwaat càmbaraat lépp li nga xamante ni aju na ci njoxem suuf googee fare ca Mbour 4 jàll ci enquête quotidien moom it mu ñëw ci rapport cour des comptes ak dossier bu Prodac nee na nag le verdict de la cour nee na nag li nga xamante ni moom la cour ba la la lam ca wax muy tribunal ba ci wàllum rapport cour des comptes ak dossier bu Prodac moom enquête yéen kaay ci xëtam mu njëkk tey mun nag le la Cour des comptes n'a pas euh, donc fouillé la gestion de Mame moom Cour des comptes euh, euh, càmbarul li nga xam ne moom mooy dossier bu Mame Mbaye Niang waaye itam ñëw ci audit bi nga xamante ni euh, mu ni nag l'audit s'est intéressé aux exi aux exercices moom audit bi ci li mu daal di desandi moom mooy exercice bu 2018 bu 2019 bu 2020 ak bu 2021 ñëw ci aussi naka la nguur gi daal di maye doole bu baax a baax ci wàllum koppar kër gi di Locafrique ñëw ci cumul d'avantages aussi ak euh, incompatibilité yi nga xam ne am na achat aussi euh, muy jëndum euh, oto yoo xam ni des voitures de de luxe lañ ko daal di jàppee ak Dakar dem dikk yi nga xam ni maître Moussa Diop moom it daal nañ ko cay épinglé moo jiite woon Dakar dem dikk ci boobule jamono. moom l'enquête quotidien da ce daal di euh, xëy ñëwaat le témoin mooy yenekaay it dafa ñëw ci publication aussi des rapport de la cour de comptes moom dafa feelu l'enquête quotidien mu ñëw ci affaire Prodac euh, mu ni nag euh, l'affaire Prodac au bon des accusés fi mu ne nii daal coow la bari na ca loolal lool Euh, moom bu ñu sukkandikoo ci le témoin yéen kaay mu ne nag euh, ay fonds yoo xam ni dañ ko pillé ak euh, lapidé ko ba noppi daal koy lapidé maanaam dañ ko daal di sàcc nag ba noppi di ko caxat caxatee daal dina cay feeñ ca rapport ca moom le témoin yéen da cee daal di desandi jàll ci les échos yéen kaay moom it mu ñëw ci rapport cour des comptes ba léegi ci la desandi bu atum maanaam bu jàpp muy ñeenti rapport mu ni nag Prodac le scandale scandale euh, sans fin mu ni nag Prodac moom daanaka ab scandale la boo xamante ni jeexul dakkul benn yoon Euh, un surplus de 2,7 milliards yoo xamante ni daal dinañ koy fay euh, Locafrique mu ni nag seul deux DAC sur onze livrés ñaari DAC rek la ñu daal di euh, livre ci onze yoo xamante ni daanaka moom moo duggoon ci projet le ak ay agent yoo xamante ni ñu ngi émerger au Prodac ak atribution aussi yi nga xam ni ay indemnité lañ au PDAS ñëw na aussi ci le Prodac bi nga xamante ni moom moo jël en charge des dépense incombant à Green 2000 ak euh, lépp li nga xam ne en tout cas ay caxa caxajee la ñeel wàllum dossier Prodac le euh, ak Cour de comptes lam ca daal di fësal moom ñëwaat na ci Les Échos ba léegi desandi sax ci rapport Cour des comptes boobule ak euh, l'ANAT ak l'ANAMO ak dans des industries extractives ñoom ay kuréel lañ mën nag révélation sur un massacre des deniers publics loolu yëpp moom Les Échos yenekaay yi nee na daal dañoo nappaaje bu baax a baax lii al moomeelu askan wi ci biir rapport cour des comptes yooyu le Euh, moom euh, les échos yéen kaay ci la daal di xëy ñëw la quotidien moom dafa dal di aussi descendi ba léegi ci rapport euh, de l'OFNAC et de la cour des comptes mu ni nag les faits saillants am na daal lu ca gën a fës lu tollook ñeent fukki dossiers yoo xam ne dañ ne ko transmettre au parquet par nag moom bu ñu sukkandikoo ci le quotidien yéen kaay ñëwaat aussi ci manquement yi nga xamante ni am na ci mu ni nag manquement dans la gestion des marchés publics au PRODAC ci aussi ex bi nga xam ne moom moo ko yoroon de 3 bi nga xam ne dañ ko ko euh, pour euh, donc l'achat d'un véhicule à 83 millions moom loolu lañ ko daal di euh, toppee muy ex DG bu 3D nga xam ni dafa daal di jënd ab woto boo xam ni mi ngi tollook mi ngi toll ci juróom-ñett fukki Euh, million yu toftal ñett ci suñu ay koppar euh, moom le quotidien daan na ci euh, xëy ñëw las quotidien la ñuy jàll moom it mu daal di desandi ci Mbour 4 ak wàccuk Bassirou Diomaye fay foofee mu ni nag Diomaye détaille le scandale de l'ancien régime moom Diomaye fi mu ne nii nag mi ngi génne bu baax a baax ak tasaat li nga xam ni nag moom mooy scandale bi ñeel régime bi nga xam ne ñoom la ñu wuutu ci bopp réew mi Papa Malick Ndour ñëwaat na ci ak rapport bu Cour des comptes moom las quotidien mu ni nag Papa Malick Ndour et eh, Aminata Mbengue Ndiaye épinglé ñoom ñaar daal fi mu ne nii euh, mbir ya euh, daanaka dafa mel ni dañ caa daal di laale euh, ñëw ci aussi décès bu Gaston Mbengue muy Gaston Mbengue mi nga xam ne génn àdduna nu nag la la dernière chute du Don King de l'arène moom ñëwaat na ci bu baax a baax L'As Quotidien bës bi le jour Euh, moom it dafa desandi ci rapport bu nag ak euh, Cour de comptes les cas phares nee na nag euh, lii nag ay cas yoo xam ne fim ne nii dañoo leer naññi bokk na ci Prodac ci biir rapport yooyu le mu ni Mame bay Niang mi nga xam ni mu ngi traîner avec le contrat de Green 2000. Euh, Papa Malick Ndour mi nga xam ni mi ngi nekk nag un cas euh, pour la cour waaye itam Dakar dem dikk bu maître Moussa Diop ne rule pas euh, dans la bonne direction jëmul daal dawul ci direction bi nga xam ni moom mooy bu baax ba finance et budget ñëw ci Amadou Ba ak le problème de de conformité de la gestion ñëw ci nag bi nga xam ni nag la scandale de la surfacturation des kits de de dialyse ci la daal di ñëwaat ak la démarche aussi de l'anonymat de l'OFNAC qui interroge euh, loole yëpp moom ay point la yum càmbar moom bés bi la jour ci xëtam bu njëkk euh, tey ñëw ci épinglé aussi par euh, la cour des comptes moom le DAGE Aliou Sow ak maître Boussa Diop ñoom ñu ngi répliqué yéey nañ yàbbi ci loolee nga xam ni xabaar la jëm ci ñoom ci biir bés bi la jour jàll ci Vox Populi moom it dafa daal di descendi ci Euh, ay mbir muy après euh, sa décision nag euh, d'arrêter les opérations domaniales et foncière le chef de l'État débarque à Thiès ginnaaw bi mu jëlee nag ndigal ndogal ak ndigal joxe ay ndigal ngir ñu dakkal li nga xam ni moom mooy ay opération yu jëm ci wàllum suuf ak la ca aju moom njiitu réew mi dafa daal di jublu nag fële ca Thiès muy Mbourkat mu nag Diomaye révèle l'ampleur du pàccoo à Mbourkat ne da daal fi mu ne nii moom ma ngay yéemu ca pàccoo gi nga xam ni nemmeeku nañ ko fële ca Mbourkat euh, Efran Effaran ak euh, certains ont trois hectares nee na nag li ci gën a raglu mooy ñenn ñi am na ñetti hectares ñenn ñi dix ñenn ñi trente am na sax ñu am ba cinquante hectares il y même un am na koo xam ni dem na ba am ci lu tolloog deux cent hectares euh, moom euh, muy indi ñëw bu baax a baax moom la président de la république Bassirou Diomaye fay mu ni nag au même moment euh, ce son juste trois hectares qui ont été attribués à la ville de Thiès c'est-à-dire cent vingt parcelles la commune de Kër Moussa n'a eu que quinze parcelles maanaam ci jamono joojee nga xam ni ñii ñu ngi am deux cent hectares. 30 10 ak 3 euh, hectares euh, lu toll ko euh, téeméer ak ñaar fukki parcelle rek la commune bu Thiès am waaye commune bu Kër Moussa moom daanaka fukk ak juróomi parcelle rek la ca daal di am ci pàccoo googu mu ne nag on ira jusqu'au bu menace-t-il moom muy artu moom njiitu réew mi ne nag dinañ dem ba jeex ci jafe-jafe googu la libération yéen a kaay moom it dafa ñëw ci ay révélation mu ni nag grave révélation de la Cour des comptes sur les dépenses de euh, personnel de l'État et les recettes euh, minières euh, mu ñëwaat ci ay révélation li nga xam ni ay xabaar la yoo xam ni Cour des comptes fësal na ko ci ay dépenses yoo xam ni ay dépenses personnelles lañ maanaam kenn nit rek moom moo koy daal di aajowoo jëm ci wàllum nguur ak les recettes yi nga xamante ni nag jóge nañ ci ndel wi di mine yi mu ni nag un pillage à huis clos am na daal ak sàcc goo xam ni ci suuf la amee euh, bu ñu sukkandikoo ci libération tas na ko nag euh, tasar ci xëtam mu njëkk mu ni ay indemnité yoo xam ni euh, dañuy toll ci lu toll boo ko cumulé ci 224 milliards de francs CFA dañu daal di verser en toute illégalité à des agents de l'État et de haute autorité entre deux mille 2015 jàpp 2018 224 milliards mu ni nag des agents euh, bénéficiaient aussi euh, cumulativement euh, d'un logement administratif et de l'indemnité y afférente d'autres agents avait deux salaires au ministère de la santé ñëw na ci njuut njaaj gi nga xam ni am na ci wàllu le mu nag ci atum 2015 jàpp 2018 lu tollook ñaari téeméeri milliards yu toftal ñaar fukk ak ñeent la ñu séddale ay agent wu état bi euh, ñoom nag ñu bénéficier woon aussi ci ay logement yoo xamante ni ay logement administratif la ñu woon ak ay indemnité yoo xamante ni aussi da caa daal di aju ak yenn ci agent yi nga xamante ni aussi ñaari salaire la ñu amoon euh, fële ca ministère de la santé ñëw ci grande côte opération du GCO bi nga xam ne jegewuñ ko mun nag redressé pour 31 virgule 377 milliards de francs CFA euh, mun nag aucune confirmation yoo xamante nii am na ca yoo xam ne interview intervenir intervenir nañ euh, par la suite ne daal ca GCO lu tolloog 31 euh, euh, virgule 377 milliards de francs CFA lañ ko daal di redressé te amul benn confirmation boo xamante ni daal nay intervenir ngir daal di xool Sud bi épinglé aussi pour fraude sur 19 virgule 7 milliards de francs CFA Mako Exploration compagnie moom it paye million millions de francs CFA et fait enterrer le dossier ferré sur 1,7 milliard de francs francs CFA Afrique Afrique Gold euh, lâche cinquante millions de francs CFA en ñëw na ci Doudou Ndiaye ak la Gold ñëw ci Dangote ñëw ci dakaar Dem Dikk bu maître Moussa Diop bi nga xamante ni aussi. daal nañ koy rattrapé par Ségateri à coût de 2 millions Diamniadio Lake City ñëw na ci ak Prodac ak Medina bi nga xam ni le maire Bamba Fall aussi daal nay jënd ay denrées alimentaire euh, pour euh, des fantômes et file les secours à ses agents loole yëpp moom euh, mii di libération da ko tas muy grave révélation yi nga xam ne am na ci rapport euh, bu cour de comptes sur les dépenses euh, de personnel de l'État et les recettes minières ñëwaat euh, ba léegi ci info yéen kaay muy l'info moom it dafa des ci gestion du du Prodac ba léegi ci euh, rapport Cour des comptes yi nga xam ni saf na ci sap euh, la Cour des comptes sort les cafards de placards moom Cour de comptes génne na mboot yi nga xam ni nag nekkoon na ci placard yi ci biir rapport googule moom ci la daal di ñëw ci xëtam mu njëkk moom it di l'info yéen kaay sur ça Euh, moom it dafa des ci dakaar dem dikk ba léegi ci rapport yi euh, maire de Saint-Louis desandi na ci di Mansour Faye ñëw ci direction des eaux et forêts ak chasse ak de la conservation des sols mu ni nag euh, fouillé par la cour des comptes yooyu yëpp daal cour des comptes daal dina koy càmbar bu baax a baax jouissance indécente Euh, moom la ko daal di titré euh, moom mi di euh, source à Dakar Dem Dikk aussi le président du conseil d'administration s'est tapé un surplus mensuel de plus de cinq cent trente mille francs CFA ca Dakar Dem Dikk ki nga xam ne moom mooy le président du conseil d'administration président conseil administration ba dafa daal di fexe ba am ab surplus mensuel maanaam loo xam ne day tege ci salaire am lu tolloog cinq cent trente mille francs CFA. noonee la ko tasee ci ay pàcc yu bëri ba si ci ba si ci ki nga xamante ni moom mooy Mansour Faye di maire bu Saint-Louis euh, moom mi nga xamante ni aussi dañ ko daal di épinglé par la Cour des comptes mu ni nag euh, pas moins de trente ordres de paiement ont été délivrés euh, pour des montants entre entre deux cent cinquante mille et trois jàpp jàpp trois voire quatre millions de francs CFA sans aucun justificatif amul dara lu koy euh, firndeel ci euh, dépense yooyu la moom source a ci la daal di descendre tribune yéen kaay la ñuy jàll moom mu ñëw ci publication bu rapport euh, en mode fast track nee na daal rapport yi publié publié nañ ko waaye en mode fast track dañ koo gaawtu mu euh, ñu sukkandikoo ci euh, tribune yi ak xëtu mu njëkk mu ne nag 40 dossiers yoo xamante ni teg nañ ko ci table Bassirou Diomaye Diakhar fay 40 dossiers sur la table au président Diomaye de servir moom nag fi mu ne nii Bassirou Diomaye fay moom moo war a séddale l'escroquerie le détournement et de deniers publique yooyu yëpp ñëwaat na ci ak l' association de malfaiteurs mu nag les infa euh, les infractions euh, les plus euh, fréquents visés am na daal infraction yoo xam ne ñoom ñoo ci gën a ñëwaat loolee daañu dañ ko daal di la ñu daal di visé desandi na moom le tribune yéene ci màggal bu Serigne Abdou Lahad Mbacké mu ni soxna Kiné Abdou Lahad Mbacké un modèle de vertu à méditer soxna Kiné Abdou Lahad Mbacké di doom bu jigéen ci Serigne Abdou Lahad mu ni nag modèle la euh, royukaay la goo xamante ni warees nañ cee mën a xalaataat bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci euh, turbine yéenekaay direct news la ñuy jàll moom it mu ñëw ci rapport euh, des fonds Covid 19 ñëw ci si le ministère du développement industriel mu ni les enquêteurs butent sur deux Moustapha Diop enquêteurs yi daal fi ne ni dal nañ ci ñaari Moustapha Diop ñan la mu ni les enquêteurs ont été confrontés à un problème mu ni ñaari. deux, act deux euh, acteurs au cœur de la gestion des fonds alloués au ministère euh, du développement industriel sappel Moustapha Diop ñaari acteurs yoo xamante ni daal euh, dañoo daal di dugg bu baax a baax ci nu fonds yi nga xam ne dañ ko jox jëmale woon ci ministère du développement industriel ñoom ñaar ñëpp Moustapha Diop la ñu tudd L'un était le ministre de, du Développement industriel et l'autre faisait office de gestionnaire euh, durant la campagne contre le Covid-19 kenn ki moom moo nekkoon le ministre euh, du Développement industriel kenn ki nekkoon ki nga xamante ni nag moom moo daal di yoroon lépp lu jëm ci wàllum gestion durant euh, la campagne contre le Covid 19 mu ni nag enquêteurs yi fi mu ne nii dañooy foogoon ni sax même euh, donc que le ministre Moustapha Diop euh, dañoo foogoon ni ministre Moustapha Diop moom moo daal di wëlbatiku doonaat keneen ki nga xam ni moom lañu Euh, njort ni euh, moom moo doon joué double rôle googule euh, suñu sukkandikoo ba léegi ci direct news ak li nga xam ni génne na ci rapport fonds des fonds Covid 19. yor-yor bi la ñuy jàll moom mu ñëw ci Thiès ak boucherie foncière bi nga xam ne am na fa caxaj caxajee gi ñu def suuf sa ca Mbour 4 mu ni nag le président débarque inopinément sur les lieux du crime. moom Bassirou Diomaye fay dafa daal di bette daal di ñëw ci li nga xam ni moom moom la ñu duppee les lieux du crime euh, fa la euh, ñaawteef ga daal di amee euh, muy séddoo goo xam ne gu jaarul yoon la ca suuf soosee di mburkat Walf Quotidien ñëw ci aussi incendie muy ak lakk gu metti gi nga xam ne am na fële ca Walf Walfadjri près de cinq cent millions de francs CFA de dégâts matériel lu tolloog nag cinq cent millions ci ay yàqu-yàqu la ci wàllu matériel euh, moom euh, lakk googee am ca wàll quotidien Walf Quotidien ci la daal di xëy mu ni nag la reprise de Walf FM et TV ce n'est pas pour demain nee na nag euh, jëlaat tàmbaliwaatu ku Walf TV ak Walf FM euh, du suba euh, pour dire l'ampleur aussi des des dégâts bi nga xam ne am na ca Walfadjri ak lakk googule Cambérène aussi des na ci ak Barthélémy Dias bi nga xam ne mu ngi lancé les travaux d'extension du SEM de Seydina Issa Laye moom Walf Quotidien daal na ci ñëwaat lii quotidien dafa ñëw moom ci Lonase un sept mois de gestion mu ni nag le DG Doura Baldé réalise un bénéfice de douze milliards ci juróom-ñaari weer yoo xam ni rek ci la dal di jite Lonase di le directeur général Doura Baldé moom mi ngi réaliser un bénéfice bu tolloog douze milliards mu ni nag la stabilité du climat social a contribué à l'accroissement de la performance de la société stabilité bi mooy dal gi nga xam ne gi ne mekkuwaat nañ ko ci réew mi moom nag euh, waral na ba lépp li nga xam ni moom mooy bénéfice yi mu daal di koy mën a daal di réaliser fële ca euh, LONASE moom Doura Baldé li quotidien ci la daal di xëy ñëw l'observateur la ñuy jàll moom mu ñëw ci rapport 2021 2022 2023 mu ni nag la cour des comptes euh, les failles ñëw na ci euh, rapport yooyu lay nekk les la cour des comptes ak failles yi nga xam ne am na ca la gestion scandaleuse de Dakar Dem Dikk muy yorin gu bon bu Dakar Dem Dikk ñëw na ci euh, ñëw na ci les multiples irrégularités yi nga xam ne am na ci dans la gestion du Prodac ñëw ci rëq-rëq yi nga xam ne yi dal na ci Prodac ak traitement princier du PCA de Laser Euh, donc qui a dûment euh, perçu 148 millions de francs fa des écarts dans la comptabilité euh, des recettes issues des industries extractives loolu yëpp moom mii di l'observateur ci la daal di xëy ñëw ñëw na aussi ci prévision hivernage bu 2024 ANACIM ak li muy alerté ci nawet bi nga xam ne moom la ñu daal di jëm Euh, mu ni nag catastrophe des pluies catastrophe mën naa am ci taw gi euh, les explications de Diabel Ndiaye moom mooy chef de service climatologique euh, desani na moom l'observateur ci nécrologie ak làmb bi nga xamante ni autis da caa dal mu ni nag l'arène perd ses quatre appuis ak génn ko àdduna kii di Gaston Mbengue zone des Niayes aussi mu ni nag le business juteux de la culture de fraise nee na nag business bu rentable la nga xamante ni am na fii ci zone des Niayes bi muy euh, mbayum euh, fraise yi entre cent vingt et cent quarante de francs CFA de chiffre d'affaires par an nag cent vingt jàpp cent quarante chiffre d'affaires yu euh, cent quarante millions de francs CFA ci chiffre d'affaires baykat yi ñu ngi ko ci def ci at mu mu jot. moom l'observateur ci la daal di xëy ñëw tey jàll ci tàggat yaram door ko ak stade quotidien Euh, moom dafa ñëw ci match bi nga xam ne doxoon dem ci diggante PSG ak euh, Dortmund ñeel euh, demi-finale bu Ligue des Champions demi-finale aller Euh, bu Ligue des champions mu ni nag P Paris Saint-Germain douché à Dortmund moom Paris Saint-Germain daal dañ ko ragg ba mu set fële ca euh, Dortmund tout reste euh, ouvert entre Bayern ak Real nee nag lépp nag mënees na ubbeeku ci diggante Bayern Munich ak Real Madrid desandi na ci Europa League moom Stade Quotidien ak kii di match bi nga xam ne war naa dox ci diggante Marseille ak Atlanta bu 19h jotee mu ni nag l'OM e ses Sénégalais pour prendre une option. Marseille ak ay sénégalais ngir nag daal di mën jàll ca euh, final googule moom ci la daal di euh, desandi jeexal ko ak euh, sunu lomb bi nga xam ni dafa ñëwaat bu baax a baax ci décès bu Gaston Mbengue mu ni nag l'arène frappée par un grand deuil noonu la ko titré ak ci lamb ju mag bi nga xam ne amoon na démb. ci diggante euh, Franc euh, ak Bombardier mu ne nag Franc signe un 13 sur 13 et rejoint euh, les VIP moom France moom Franc moom mu daan. Euh, mu am fukki ak ñetteelu ndamam ci fukk ak ñetteelu euh, combat yi nga xam ne am na ko ci làmb ji ba noppi dal di fekk ji ñu ñu duppee les VIP de l'arène waaye ñëw ci choc bu 5 mai bi nga xam ne moom lañu jëm ak open mu ni Eumeu et Sa Thiès des états physiques am nañ fi mu ne nii daal doole ak taxawaay goo xamante ne nii euh, macha allah am na solo ci làmb jooju yi nga xam ne moom lañu jëm mbokk yi lii moo gënoon fës ci xabaar yi tey. ak ci